xanaa soñu sama bopp. soñu mbooloo bi particulier rek. dëgg-dëgg bi. ak résultat bi ci nekk. ndax sëñ bi bu ñuy wax ci naa wax ni sëñ Fallou ak ñoo gën a bokk. waaye dañoo jaay bokk jënd def di taalibe yi def. sëñ Fall daan wax naan sax na may mooy seen sëriñ wala sëñ Mokla ndax ñu moo ñoo mujj sëñ Tuubaa ka jàpp ko gën ndaw muy sëb sëriñ rek kon bàyyi woo kenn ci diggante bi te boo waroon bokk dong moo gën a waaye dañoo jaay lépp jënd ko bokk si ñax bi bokkut sëñ bi dara waaye seetlu na ci sëñ bi loo xam ne kenn seetlu ko ci te ak taalibe ko man kon nag kon dañoo war a jënd sëriñ Tuubaa dafa lëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàtte léppam jox ko boppam jox ko njabootam nafsi wa diini suma ahli wa léppam la ko yonent bi fay ko loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët nam joxoon yonent bi boppam itam Seex Ibra noonu joxoon sëñ boppam ba mu defoon ko lim ba kon nag yonent bi daal daa ni ku bëgg a jëlee nawet bi képp koo xam ne dangaa liggéey sëñ Tuubaa fàtte sa bopp boo fi jógee sëñ Tuubaa dana taxawal sa njaboot taxawal képp koo xam ne danga fay nekk fàtte sëñ Tuubaa waaye du taxaw sa bopp du taxaw sa njaboot suñ la dencee fàtte la sa njaboot la ci jox kon yaa ngi si yàlla mos a. sëñ Tuubaa bàyyiwul sa njabootam dara waaye ak njabootam nekkul dara. maam Cheikh Ndiouf Ibrahima Ndiouf béy ko dara. waaye mhm. dama ko kon wane yoon rek la. Mhm. bu loolu jàllee itam. Mhm. dëkk bi lañ ko war a jox orma. di ko wàññi joxoon. di ko sëñ Tuubaa jox. ndax mos bëgg dëkk fenn mos bëgg fanaan fenn ful Tuubaa. yàlla na toog loolu ba mu jóge fii denc ko fi. a wàññi bu dëkkee rek te bu toog dem nañ bay wax ni fañ ko denc mm-hmm. ba ba fañ ko denc euh, ak fam ak fam faatoo ak fañ ko denc fu ci ma maqaam mm-hmm. kon Touba mm-hmm. am na cër bëgg lu war a fonkale sëñ bi cër ñii ci mën a jàpp nag wuyu si woon nguur gi wasiru daaxle ma ñuy wax ministre de l'intérieur wasiru difaa ministre de l'armée tijaara ministre de commerce ak rais dool ci boppam chef d'état kii mooy yëf gendarme yi kii mooy yëf police yi kii mooy yëf douane yi servetaan gis leen ñoom ñëpp kon nañu dimbale bu ñuy indil Tuubaa nit ñu indi ñu ko yiw mën a jàngate taalib yi te bañ fi indi kenn ñu waxtaane kilifa yi ba xam ndax kilifa dañ leen di sàmm de seen njaboot dañu war leen ko sàmm waaye indi fi nag ñoo xam ne dañuy dóor nit ñi ak di leen toroxal ak di leen xas mën naa ñàkk feebar bi ne ko suñ si di waxee léegi ñu ngi ko tudd fu ne xaw ma nag naka la demee waaye te yoon nañ fi de tari bi fëgg fëgg boo xam ne ak sa na tubaab ba suñ mën taxaw wax guddi ñu bàyyi fëgg ñu tëjaat ko nit ñi fëggati ba jëm pare sëñ Mountakha waxati ñu bàyyi fëgg buñ tëjaat nag fëggam ñetteel loolu mooy première vague ak deuxième vague muy troisième vague tëjaat dañ fëgg te buñ fëggee ubbi daañ bàddi te buñ bàddee nag dafay ab musiba la kon njiitu réew mi maa ngi lay conseil nga am yërmande ci taalibe yi réew mi noo ko bokk ñëpp war ko ñi xiif nañ mar nañ nañ leen dimbali ci bëgg nañoo liggéey amuñ jum am nañu ñu ba léegi jox ko ni ak jiw bu na yàlla yeexal taw bi ndax nit mën a am aw jiw ndax borom yërmande yàlla ko jox ñëpp tam taw ñu ji waaye njiitu réew ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu bind ñëpp waaye yàlla koy ni muy yërmande yi bindee yëpp لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فصلا خليج القلب لانفضوا من حولك أما البوليم كان دولو كان نكيو داوود خلاص أنت تزهوا وبعدين نقول يا داوود دنكو آه، إنا جعلنا خليفة غير فحكم بين الناس بالحق كنا نيو أتي دقة ما نيو أتي دقة لك لين دايما نونا أي جيل أي تاجل دايما ماكرون موي سونو إمام su defee ne mooy suñu xel la ndax tubaab bi dañuy coppi ko la loolu nag jëriñum réew jëriñum jullit noonu daal na jàpp ci suñu tubaab jàpp ñu gën ñu gënoon te mooy ci lu baax moo leen jaay wax di jëloon gudd ndax maa ngi déglu sëñ si dama jox kàddu rek waaye loolu la ndax li wax lépp mat na kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan ñëpp jàmm asalaamaaleykum